bismillah alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala ibadihi astafa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fas yéene dikkaat ak yéen rek ci bind biñ baaxoo ànd ak yéen ci téere bi tudd alminahul miskiya fil xawaariqil makkiya cheikh mahamadul amin Diop dagana bind ko ci xarbaaxi sëriñ Tuuba radiallahu taala anhu mu mel ne kon tey ñoo ngi ci bindu euh, fukkeel ak ñaareel fukk ak ñaar bindu fukk ñaar incha allah ñu tolloon ci mi wax naan wa minha bokk na ci xarbaax ya an Sidi Mouhamed jële ci ku ñuy wax Sidi Mouhamed aydan ba tey mu ne a cheikha naka sëriñ ba naka sëriñ ba Abdullahi tamoo di Abdullahi ibnu Muxtaarina kii doomi Muxtaarina al mutaqaddimi kay aji jiitu al aana léegi aradat gaaraloon na laxoo ñeel ko waraqatun aw kayit fiiha woo xam ne aradat galanoon na la hooñal ko waraqatun aw kayit fiiha woo xam ne nekk na ci kalaamu baadil fuqaha yi waxi lenn ci way dégg ñu fiq waaye zunnu dana jort ne xoo moom annahu naka moom ibnu aradoona ti ñuy wax ibnu aradoon la mbir moom dana wax fii ci koo xam ne araada namm na at tawbata tuub an nasuxa gade ab sellaa kon sabili rashadi ak soobu yoonu jub bi ibaratin ci aw waxin naxwu u nuru innal afdala naka la gën laxoo ñeel ko an yatawajjaha mu jublu ila masayixi taalimi jëm ci sëriñi jàngale yaxuzu mbir moom dana jàpp minhum ci ñoom wa yaqtadi tamuy roy bi ci ñoom wala yatawajjahu te du jublu ilal masayixi jëm ci sëriñ sa allazina ña nga xam ne yantasibuna danañu askanu ila tasawuf jëm ci tasawuf wa tarbiyate ak tarbiya ndax fa inna tarbiya fa inna naka tarbiya fii hasa zamani ci jile jamono lam takkul lam takkun amatul aw naxwa zalik wala yu mel noonu kama fi ibarati ra'i ni mu nekk ci waxinu aji nettali ji almuxbiru koy aji xibaar lii ñeel ma eh, Cheikh Mamadul Amin nee na jële nañ ci eh, Sidi Mouhammad min tuddoon aw turam ci ginnaaw mu wax ne a Cheikh Abdullahi ibnu Muxtaarina dafa am mu gis aw kayit woo ne waxi lenn ci maanaam fuqaha yi moo ci nekk jàpp na ne sax ki ñuy wax ibnu aradoon la mooy wax wax jooju euh, muy wax ne képp ku nam tuub tuub gu sell soobu yoonu njub dégg nga la gën ci yow mooy nga dem ci euh, maanaam euh, sayxu taalim yi suyuxu taalim yi sëriñ si nga xam ne dañuy jàngale xam-xam nga xam ne xam nañ alxuraan ak sunna bu wér te di ko jàngale dégg nga ñooñu daal nga dem ci ñoom nee na tey tey tey jëlee ci ñoom ak di ci ñoom moo gën ngay dem ci sëriñ yi nga xam ne ay sëriñ ay sëriñ suufiyanke lañ waaw mu tasawifoona yi ñi nga xam dañuy dañuy dañuy dañuy askano jëm ci tasawuf ak di wax ne dañuy tarbiya ndax jamono jii moom tarbiya amatul waaw ni nga xamee ne ki ma ko nett li ni mu waxee nee na loolu moo nekk ca kayit ba qaala Sidi Mouhamed nee na wa talaba mu sàkku min nii ci man an axmilaha ma yanu ko maanaam ma yóbbu ko rek ila cheikh ci sëriñ ba li yuallimanaa ngir mu xamal nu hal zalika ndax loolu mutlaqan cig boyal la am laa wala déet fa atazartu ma daal di gàntal laxoo ko xayaa an ngir kersa ngir rus na cheikh ci sëriñ bi fa aqaala nii mu daal di may xàccal wa taraktuha tama bàyyi ko indaxoo fa moom wa madaytu tama wéy ne Sidi Mouhamed nee na bi nga xamee ne gis na kayit yi ba jàng ko nee daa sàkk ci man ma jël kayit yóbbu ko ci sëñ bi ngir sëñ bi daal di indi ay leeral xamal ñu ndax loolu ibnu aradun moom wax ndax mooy li wér ak ndax moom loolu dañ ko itlaq nga xam ne amatul jooju mu wax mooy li wér wala déet nee na ma daal di koy dogal ngant ngir ruus gu ma ruus sëñ bi dégg nga nee tax mu daal di may eh, xàccal maanaam mu daal di nangu sama ngant daal di may bàyyi eh, ma daal dem wa kuntu nekkoon naa ala xaari bi ziyaarati ci digg yoonu ziyaare fala ma wasaltu ba ma agsee ila seexi bi o bi ozurtuma ziyaare ko wa masta wa makastutama sax macha allah lu soob yàlla arsala mu yonne ilay jëme ci man arsala mu yónnee liy jëme ci man a seexu sëriñ bi zaata yow min jëmmi ab bis fa ataytuhoo ma dikkal ko wa makkana nii tam jox ma min waraqatin ci aw kayit bi xatti yaminihi ci mbindum nday jooram ba mu jaayu ban mbir mu muy aju tontu fii haa ci moom tilkal waraqata woowale kayit al fiqhiyata bay ko jóg ba di bun bàyyi woon fii ci moom tib xamaa mu dëppoog la xam ne rek fii xaa nekk na ci moom kayit woowule xarfan bi xarfin amul wenn xaraf wu ñu wuute min xayri sabqi kalaamin ci lu dul jiitug wax fi xaa ci moom min ni goog tukkee na ci man wala suaalin du caagee ne ab laaj fa taajabtu ma daal di yéemu kasiran lu bari wa madaytu tama wéy biha ak moom naxwa cheikhi abdullahi ci wàllu cheikh abdullahi baada tamaami ziyaara ci ginnaaw matuk ziyaara sa fa sallamtu ma daal di nuyu alayhi ci moom ma ne ko haati indil bil waraqati wa fa ataa daal di indi bihaa ci moom fa axrajtu ma daal di génne la hooñal ko war a xata cheikhi kayitu sëriñ bi wa qaabal naa huma te ñu jàkkaarle leen fa isa huma am til lu mooy ñoom ñaar rek kama huma niki niki ñoom ñaar maanaam ñoo bokk fa taajaba daal di yéemu a cheikhu sëriñ bi a cheikh abdullahi kasiran lu bari was daada tamu dolliku itiqaadan pas-pas fi cheikhi ci sëriñ bi nee na bi nga xamee ne waqante na maag loolu eh, abdullahi moom a cheikh abdullah mu daal di nangu sama gànt bàyyi ma fekk boobu maa ngi jógoon jëm ci di ziyaara ji sëriñ bi bi ma egsee sëriñ bi ba ziyaar ko am fa ay fan nekk fa benn bi sëñ bi yónnee woolu ma ma ñëw nee na mu daal di may jox aw kayit woo xam ne mbindum boppam mbindum mbindum loxoom moo ci nekk te mbind moom kat day tontu kayit woowu nga xam ne moom la ma Cheikh Abdoulahi moom doon gaaral te ma bàyyi woon ko ca moom nga xam ne indaale ma ko. dégg nga xam ne maanaam mu maanaam mu tontu laaje nekk ca ca kayit woowu le te na waxuma ko ci dara laaju maanaam amul lenn lu ma ko ci wax maanaam waxuma ko dara lu jëm ci kayit wa te itam sëñ bi laajuma ci dara nee na ma yéemu ci lool lool bi sama siyaare àggee ma daal di jóg daal dem ci Abdullahi Cheikh Abdullahi moom dellu ca moom bi ma egsee waxuma ko dara dama ne ko yow daal kayit bi ma waroon ne ma yóbbu ko ci sëñ bi te ma woon ko fi indi ko indi ko ma xool naka indi ma daal di génn bi. nee na ñu daal di jàkkaarle ñaari ñaari waraqa yi ñaari kayit yi ndeke li nekk ci kayit wi rek moom la sëñ bi di tontu ci kayit wi nee na Cheikh Abdullahi moomu daal di yéemu lool dégg nga pas-pasam daal di dolli ko ci sëriñ bi wa nassu waraqati cheikhi yaxub kayitu sëriñ bi hakaza nii la demee lafzuhu baatam ba nee na li sëñ bi doon tontu ci kayit wa nag nee na nii la demee nii la tëdde daa indi dafa njëkk indi aw bayit ne man raama bi cheikhi usulan lil farid naalal wusula laysa yan xuufu marid man raama ku sàkku bi cheikhi ci sëriñ bi wusulan ak àgg lil farid yëm ci yàlla mi kenn naa la kon mu am al wusula àgg ga laysa yan xuufu déet muy déet mu koy jublu maridun jenn aji fetteerlu képp ku euh, sàkku ak àgg ci sa boroom ci sëriñ bi matub sëriñ di nga am ak àgg te lenn lu fetteerlu wala kenn ku fetteerlu du la jege du la jublu wa fi kalaamil xawsi nekk na ci waxi xettal wa abi madiana cheikh abi madian alayhi yàlla nekk ci moom ridwanullahi ngërëmul yàlla taala kawe na mu wax ne man képp koo xam ne lam yaxuus jàppul al adaba ay teggiin minal mutaaddibiina ca way teggiinuña afsada kon mu yàqal man ña nga xam ne tabiahu topp nañ ko nee na cheikh abu madiana radiallahu taala anhu nee na képp ku jëlewul ab yar ci sëriñ si nga xam ne dañoo yaru te yare nee na di nga yàqal ñu topp sa gannaaw maanaam ñi la topp di nga leen yàqal wa fi kalaami baadil awliyaa yi nekk na ci waxi lenn ci awliyaa yi al asfiya yi ñe diwaay sell alayhim yàlla dool leen nekk ci ñoom ridwanullahi ngërëmul yàlla innama yakunu naka dana nekk al iqtidaa roy bi waliyin ci aw wali yi dallaka woo xam ne tegtal na la allahu yàlla taala kawe na alayhi ci moom wa atlaaka tamu yëral la alaamaa ca la nga xam ne aw daaxoo dénk na ko ko minal xusuusiyat ci ak jagle la dexi fa moom wa tawaatamu taxañ shuhuda bashariyatihi maanaam eh, feeñu ak doomu aadamam fi wujoodi xususiyatihi ci amuk a jagleem fa al fa alqayta nga daal di sànni alayhi ci moom woo womatu ga fa salaka mu daal di sóob mu daal di sóobu bi ka ak yow sabila rashaadi yoonu yoonu njub am na ci awliya yi yal neen suñu borom doole gërëm am na ñoom ku wax ne képp koo xam ne danga fekk a waliyu dégg nga nga roy ci moom danga fekk aw waliyu woo xam ne suñu borom moo la ko tegtal mat la ba indi la ci moom wan la dara ci li li nga xam ne ay secret la ak ay jagle ak ngëneel li nga xam ne moom la ko yàlla dénk dégg nga bu ko defee yow doo gis nekk gi mu nekk doomu aadama waaye yàlla ji nekk ci moom rek moom ngay gis ak jagle gi ko yàlla defal nga xam ne moom la wuuteek yeneen nit yi ci des loolu lépp suñu borom wan la ko nee na na ko daal di sànni sab nos bu ko defee mu daal di womat jaarale la ci yoonu jub yi sóoboog yow mu teg ci aw bayit daal ne fa suxbatul axyaari aynul intifaa walam waman waman lam yuwaasilhum xawaa kullan difaa fa soxbatul axyaari aynul intifaa man lam yuwaasilhum xawaa kullan difaa mu ne fa soxbatul axyaari ànd ak tànnees yi aynul intifaa yi mooy jëmmi ak jariñu man képp koo xam ne la mu la mu yuwaasilhum ak ñoom xawa kon mu làq kullan difaa in géppuk jañu ànd nit ñu baax ñi tànneef yi dégg nga nee na mooy jëmmi ak jariñu koo xam ne jokkowut ak ñoom nag jéemuta am lanteeg ñoom nee na kooku ak sor yàlla rek la ko loolu di jural wa fi kalaami baadihim nekk na ci waxi lenn ci ñoom ridwanullahi ngërëmul yàlla taala kawen alayhi yàlla nekk ci moom soxbatu awliya illahi àndaaleeg wali yàlla yi taala kawe na yaxsulu dana amee bihaa ci moom al intifaaxu jariñu ga li saahibin ñel ab àndandoo duuna man ci lu ña xam ne aadaahum noonoo nañu leen leen man suubi ne ca way askanuña ilal ilmi jëm ci xam-xam nee Euh, am na ci awliyaaw yi ak nit ñu baax ñi yàlla na suñu dool doolee gërëm am na ci ñoom ku wax ne ànd ak awliyaaullahi yi dégg nga ci la ak jariñu di amee waaw ci la ci la ak jariñu di amee euh, képp ku bëgg a jariñu daal ku ànd ak ñoom dégg nga jariñu rek nga cay jëlee waaye nag koo xam ne nag dégg nga da leen di weddi wala ngay dem di ànd ak ñi leen di weddi ak ñi leen di noonoo te di askan seen bopp jëmee ci xam-xam nee na ñooñu moom duñ jariñu du maanaam eh, du maanaam du duñ duñu maanaam duñu am njariñ mukk duñ duñ jële ci loolu njariñ mukk safaan ba kay lañ cey jële wa bokk na ci baax yi ma la nga xam ne axbarani xabaar na ma bi ci moom ahmad ibnu ahmad zeynu daymaani alyadali mi taarub daymaani alyadali ok kay ko jógee dal yi waqad ataahu ta mbir moom dikkal na ko axoohu mbokkam ashaqi ashaqiqu kadi ab xarit ahmad salim ma rijaalin ànd ak ay góor minhum ñu bokk ci ñoom li ziyaare ci yi ngir ziyaare sëriñ bi wa maahu te àndoon naag moom mushafun ab kaamil wa juz'aani ak ñaari xaaj minal buxaari ci buxaari wa zafiru tañu tuufu bi liqaa'i cheikh ci bi baada salaatil asri ci ginnaaw kii ci ginnaaw julli takkusaan wa kaana nekkoon na yowmal arbaa di bisub àllarba assaani bay aj ñaareel wala ak ñaar fukk min jumaadal ula ci jumaadal ula muy rakkaat ji ah, ma ama amsasin ci atum amsas muy 1341 wa kaana nekkoon na ahmad ahmad wasilatahuma di seen kerkeraan ila cheikh jëm ci sëriñ bi izaka ca boobe fa nekkoon na maaxoo di ànd moom sëriñ bi fil ca dëkk ba xablahuma ci seenu ci ci ci seenum njëkk fa taajaba daal di yéemu nag ak cheikhu sëriñ bi kasiran lu bari min wusulil mushafi ci egsi kaamil bi wal buxaari yi ak eh, bu maanaam buxaari bi wa qaala wax ne wakaana kaana nekkoon na wa nekkoon na fii maxfilin ci mbooloo azimin muy aj rëy wa nekkoon na ana man bi mar an ci ab gisuwaay mina naas ci nit ñi wa asmau te danaa dégg mina seyxi ci sëriñ bi wa aarifu tamay xam sawtaxoo kàddoom min aswaati naas yi ci kàddu yu nit ñi wa kaana nekkoon na bi sawtaxi ci kàddoom nga baadu irzisin lenn ak riir wa mën a ani te tere ma mina duxooli ci tàbbi alayhi ci moom xifdul adabi wattu ay teggin maaxoo ànd ak moom is ngir lay sa minal adabi déet muy bokk ci ay teggin ab du xoolu tàbbi alayhi ci moom bilaa isnin ci lu dul ndigal min xoolal tukkee ne ci moom. Cheikh Mamadou Amin nee na bokk na ci xarbaaxi sëriñ bi li nga xam ne eh, ku ñuy wax Ahmad ibnu Ahmad dégg nga ñu di ko dàkkantale Zeynu Daymaani al Yadali moo ma ko nettali moo ma ko nettali boppam. nee na euh, am na mbokkam moo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk nda ak baay ñu di ko wax Ahmad Salim nee dafa ñëwoon ngir ziyaare sëriñ bi ànd ak lenn ci sunu sunuy mbokki naa gànnaar ñëw ngir ziyaare sëriñ bi waaye bi mu ñëw mi ngi indaale ab kaamil indaale itam ñaari xaaj yoo xam ne xaaji maanaam saxiixu Buxaari la saxiixu Buxaari mu indaale ñaari xaajam yépp nee na bi ñu itam ginnaaw bi sëñ bi eh, sëlmalee ci julli takkusaan lañ soog a dajeeg sëriñ bi. mu nekkoon bisub àllarba nekkoon ñaar fukkeelu fan ak ñaar ci weeru rakkaat ci gàmm ci atum 1341 ci gàddaay gi nee na Ahmad Ahmad mii di nettali nee na man maa leen doon yóbbu ci sëriñ bi ci bis boobee ndax booba daal damaa fekkoon ma nekk ci ci ci dëkk bi ci njaareem dégg nga xam ne damaa fekkoon ma nekk ci dëkk bi lu jiitu loolu dégg nga bi ñu ñëwee nag ma ànd ñoom yóbbu leen sëriñ bi bi ñu sëriñ bi daal di yéemu lool ci. maanaam ñëw gi ñëw si indaale ab kaamil ak ñaari xaaji buxaar yi bi ñëwee itam nee na ñu ngi ko fekk ci mbooloo mu rëy dégg nga Ahmad nee na maa ngi maa ngi toog maa ngi toog foo xam ne maa ngi seen sëñ bi mbooloo mi wër ko maa ngi dégg itam muy wax xàmmee naa kàddoom itam ci biir kàddu yi nit ñi ndax moom kàddoom dafa amoon am riir mu ci nekk li waraloon itam mënuma àgg ak sama délégation bi ma àndal mooy maanaam wattu ay teggiin ñu sàmmoon teggi teggiin ndax bokkul ci ay teggiin ma jekki-jekki rek agsi ci moom te digaluma ko ma dégg nag mu wax ma loo xam ne lafzuhu baatam ba mooy kuntu nekkoon naa baada salaati ci ginnaaw julli gi maa rasulillahi ànd ak yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala wax ne ma inni naka man talabtu sàkkul naa laka ñàlla min rabbi ci sama borom rabbil izzati kii borom tedd nga li tabaraka barkeel na wa taala tamu kawe an yajaala mu def alqur'aan alqur'aan wal xadis ak xadis wadiatan muy ndénkaan laka ñel la fa ujiba te te te te te yéemuloof bi ci moom wa bi ak ci la xam ne xaala wax na ko baxin iskay baxin iskay fartajja daal di soow nag annaasu nit ñi waa ala takawe al aswaatu a ya ajaban ngir yéemu wa xaqata yaay na lahoo ñeel ko wala hum ak ñel leen su ma fi xadihi topp ci ëllëgam sa nag ataytuhoo laa ko dikkal bi ci moom fa xaala mu wax li ñeel ma ne ma innahu naka taw tawkiidun ak feddali la li tilka shahaadati ñeel joojele seere am si démb euh, Cheikh Mahamadul Amin nee na euh, Ahmad moomu nee na mu ñuy nettali nee na bi ma toogee noonu maag délégation bi ma àndal ñi ngi gis sëñ bi mbooloo mi toog ak moom it ñi ngi leen di gis di dégg seeni kàddu xàmmee nañ itam kàdduk sëriñ bi nga xàmmee naa kàdduk sëriñ bi ndax am riir la cee nekkoon euh, ak kàddoom dafa am dara ci ak riir nee na maa ngi ko dégg mu wax ne ginnaaw bi ma sëlmalee jullik tàkkusaan si eh, daje na ma ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ma ne ma yow day sàkkul naa la sama borom tabaraka wa taala mu jox la alquran ak xadis dénk la ko nee na mbooloo mépp ànd yéemu ci loolu mu wax dégg nga daal seeni kàddu daal di jóg ngir yéemu ci wax jooju joojule mu ne te wax ju mat yéem la nag ci ëllëg sa nag nee na ci laa ko dikkal nag ànd ak délégation boobu dégg nga ak sama mbokk moomu mu indaale kaamil bi ak saxiixul buxaari bi sëriñ bi daal di wax ne dégg nga loolu ma doon wax démb e, ci ginnaaw bi ñu jullee tàkkusaan lii mooy seere si lii mooy seere si ne la la ma wax démb loolu lu dëggu la te lu wér la e, lii ab tegtal la ci boo xam ne seeree na ko ndax yonente bi sallallahu alayhi ci boppam moo ma jox alquran ak xadis dénk ma ko wa minha bokk na ci xarbaax yi ma la nga xam ne axbarani xabaar na ma bi ci moom radiallahu taala anhu min anna rasulallahi ci naka yonante bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ataahu dikkal na ko zaata laylatin ci jëmmi ak guddi wa amarahu tam digal ko bi taxyiri baytin ci soppi aw bayit xaalahu woo xam ne waxoon na ko fii madxihi ci ak tàggam xaala wax na aseex sëriñ bi wa kaana nekkoon na albaytu bayit wa min axsani ma di gën bokk ci gën rafet la nga xam ne xultu wax naa ko Cheikh Mamadou Amin nee na euh, bokk na ci xarbaax sëriñ bi li nga xam ne moom ci boppam moom sëñ bi moom ko nettalil boppam nee dafa am guddi goo xam ne yonent bi maanaam dafa am guddi goo xam ne maanaam euh, yonent bi saa salaam da koo digal mu soppi aw bayit ci ay abiyaat yoo xam ne da waxoon ngir tagg yonent bi saa salaam te nee na bayit woowu bayit woowu ma ko soppiloo bokk na ci bay bokk na ci bayit yi gën a rafet ci li wax ci moom dégg nga yonent bi saa digal ko mu soppi ko. wal baytu baydu nag al muxayiru wadiwun soppi mooy xaaza nabiyullahi la laa yaalamu illa allazi lawhu lahu wa qalamu xaaza làqana nabiyullahi yonante bi yàlla bi loo xam ne la yaalamuhu du ko xam illa allazi ndara yàlla mi nga xam ne lahoo ñeel na ko allawhu alliwa ja wa qalamuhu ak xalimaam ka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne kenn xamu ko ku dul yàlla mi moom alliwa ja ak xalima ga baytu woowu nee na moom la bindoon yonent bi saa sallam soppiloo ko ko ne ko soppi ko wa baytu taxyiiri baytu soppi ga nag mooy xaaza rasulullahi ma lam yaalami illa allazi xaatabahu bi kalimi nee na bayit yi nga xam ne moom la ko soppee mooy xaaza laq na rasulullahi yonent bi yàlla bi maa loo xam ne lam yaalam du ko xam illa allazi ndara yàlla mi nga xam ne xaatabahu wàqante naag moom bi kalimi ci ay baat nee na bayit yi ko soppee mooy mooy woowule yonent bi salaa sallam daal làq na loo xam ne kenn xamu ko ku dul yàlla muy wax ak moom muy wax ci ay baat sakata mu daal di noppi moom sañ bi an xikmati taxyiri ci xikma soppi ga xultu man nag maane ne wa fi haza taxyiri ci nekk na ci gileg soppi tan tanwihun ak yëkkati azimun guy aji màgg min rasulillahi gu bàyyi ko ci yonante bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi xadimihi ci liggéeykatam bi wa bi xadamihi ak ci ay ak ci ay liggéeyam xaysu aqarra foofu xamee ne saxal na la ko bi an allaha ci naka yàlla tabaraka barkeel na wa taala ta mu kawe xaata ba xoo wàqante moom bi kalimi ci ay baat radiallahu taala anhu wa ardaahu ta mu gërëm loo ko an naa ci nun wa hunaalika te nekk na foofeekat maa loo xam ne laa yaalamuhu du ko xam wala yafhamuhu te du ko dégg illaa man dara koo xam ne rek fahamahu déggal na ko allahu yàlla iyaahu moom wa allamahu ta mu xamal ko min la dunhu ca lafa moom ilman ab xam-xam nee na sëñ bi mu waxee loolu ba noppi daa daal di noppi leeralul lan mooy sababu soppi gim soppi bayit bi ak xikma bi ci nekk Cheikh Mamadou Amin nag ne man nag maane ne soppi soppiloo gi nu soppiloo sëñ bayit wii day ak yëkkati la gu rëy gu màgg gu bàyyi ko ci yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati gum yëkkati katam bii ak mboolem ay liggéeyam dégg nga ndax saxal gi ko saxalal ne ko suñu borom naa moom ci ay baat dégg nga nee na a ngi foofu moo xam ne kenn xamu ko kudul yàlla akub yonantam ak ku ko yàlla xamal nee na ñoom rek ñooy ñi nga xam ne ñoo ko xam wa minha bokk na ci xarbaax ya ma la nga xam ne axbarani xabaar na ma bi ci moom radi yàlla na dollee gërëm allahu yàlla taala kawana anhu ci moom fii chani baytihi ci mbirum néegam ba allazi néeg ba nga xam ne kaana nekkoon na yastaxilu di soxlawoo fii ci moom di rasulillahi ñeel yonante bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa dalika te loolu moo di annahoo naka moom fi axiril xaybati ci mujj ci mujjug tukki bi albaxriyati bi ko jug géej makasa saxoon na fi baadil jazairi ci lenn ci iil yi tawilan eh, diir bu yàgg fii baytin ci ab nekk wax moom dong wa taabat te teey fii ci moom xidmatu rasulillahi liggéey liggéeyal yonante bi yàlla bi sallallahu taala alayhi wa sallam maa loo xam ne lam tatib musta teey fii xayrihi ci fudul moom wa xassalata amal kasiran lu bari minha maanaam ci liggéey ba fii tilkal muddat ci boobale diir falamma hammoo ba nga xamee ne yitte woon nañ mbir rujooy ca dellu ga bihi ak moom ilaa ahlihi jëm ci ñoñom bi iradatillahi ci nammeelug yàlla taala kawe na alqadimati gay aji jiitu walam yabqa ta desut illaa ayyaamun dara ay bis xalaa'ilu yu di ay yu di way néew dugg na ko hammun njàqare kabirun luy aji rëy min ajli baytihi ngir néegam bi haza bile kayfa yu faariquhu naka lay teqalikoog moom wa yaskunuhu ta koy dëkke dëkkee baadahoo ci ginnaawam fujjaarun ay kàccoor yaasoona ñooñ danañu mooy allah yàlla fii ci moom maama ànd ak li nga xam ne sabaqa jiitu na fii ci moom min irda illahi ci gërëm loo yàlla taala kawe na wa rasulihi ak yonantam bi fa maa la bi sa saxul alxaakimu gouverneur bi an boo xamee ne azina diga digle ne bi raxyili ci laxas wa muzaayalatil makaani ak teqalikoog barab ba fartaxaloo ñu daal di laxas wa xallaw tañu wàcc diyaaran ay kër xawlahoo ca la ko wër xasabooha yooyu yooyu daan nañ ko jël min ahliha ci seeni ñooñ zulman ngir tooñ falamma zahabat ba nga xamee dem na anhum walis ñoom xataa raaytu ba ma gis almaxalla barab ba saidan mu di ab pàkk laa anisa boobu déet wéttal bi ci muy nekk ci moom wala mujiba te déet aji waral li raxiili ñeel laxas ga illaa inaayatullaahi ndare jagleg yàlla rek binaa ci noonu bi fadlihi ci ngëneelam daalika loolu yi nag fadlullaahi ngëneelul yàlla yuuti loolu dana ko jox man yashaa ku ko soob bokk na ci xarbaaxi sëriñ bi Cheikh Mamadou Amin nee na sëriñ bi ci boppam radiallahu taala anhu nettali na ma mbirum néeg benn néeg boo xam ne da cee nekkoon ci mekkee ci tukki bi ci géej gi néeg boobu nee na dafa soxla woowoon rek di liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa ci di ko tagg ak di julli ci moom eh, ci bind nee na ci mujjug tukki bi la néeg boobu am na fa diir bu yàgg boo xam ne nee na jekku na fa liggéey bi jekku yin woo xam ne liggéey bi teey ci moom teeyin woo xam ne loolu maanaam loolu mus koo am mus koo am ci tukki bi ci benn barab nee na fudul foofu mu mu liggéeyal fa yonante bi sallam lu baree baree baree bare dégg nga gërëm loo yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngërëm lu kawe nee na eh, bi nga xamee ne nag dogu nañ ci delloosi ko ci am réewam ak ci ñoñam ci nammeelul sunu borom ak ci ab dogalam nga xam ne ay fan yu néew moo tee ñu daal di Eh, bàyyi ko foofa daal di ñibbisiwaat ci réew mi nee na ma daal di am njàqare nag ci mbirum néeg boobu njàqare lu tar eh, naka laay demee daal teqali ko ak néeg bi bu ko defee ay fu dégg nga ay fujjaar ay kàccoor dëkkee ko di mooy yàlla di maanaam di fi mooy yàlla ak di fi def di fi def lu baaxut ak ànd ak li ma fi def lépp ci gërëmuloo yàlla akub yonantam sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp daal nee na tax njàqare daal di may dal dégg nga ma am tuuti njàqare daal ci sama xol. ci ci ci ci mbir moomu le waaye nee na euh, diir bu gàtt lañ ci teg rek gouverneur ba nekkoon foofu daal daal digle ne mbooleem ñi dëkkoon foofu ci armée bi ñëpp nañ fa daal di bàyyi ko te tuxu te jóg ñoom ñëpp ñu daal di jóg ànd ak seeni bagaas daal dem feneen ci beneen barab boo xam ne xëy na soriwul foofu waaye feneen daal lañ dem foo xam ne ñoom sax moomun ko dañ koo jële ci seen ci seen ñoñ ci ëpp leen doole rek ak ci tooñ bi nga xamee nag ñoom ñëpp dem nañ ba nga xam ne gis naa pàkk ba ak la wër néeg boobu mu nekk ab déeneer boo xam ne pàkk bu wéet la boo xam ne kenn dëkkatu fa kenn nekkatu fa te amul lenn lu waral tuxu gin tuxu ak laxas gin laxas dem bàyyi ko foofu lu dul ngëneelul yàlla ak jagle gum ma defal ci ci ngëneelam rek ma sant yàlla lool ci loolu ndax loolu daal xam naa ne ngëneel la loo xam ne ku ko soob rek la koy defal te defal na ma ko foofu kon xam naa mbokk yi incha bind bi dañ ko yemale foofu rek ba beneen altine ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.